waa ñu gis euh, tey euh, si nga xamante ni moom mooy Siteu euh, def benn benn benn benn point de presse conférence de presse sax laa ko mën a tuddee wala presse ñëw mais dañ ci gis ci biir ci biir ci biir conférence de presse bi am benn wax bu mu woo ndaw ñi ñi nga xamante nii pour ñu bañ a topp politiciens yi si seen combat yi nga xamante ni ñu ngi koy def tey ñu wax boobu noonu noo ko jàngatee. moo jëkkee génn foofu donc nag génn bi génn foofu dafa def erreur. parce que moom warul ex warul warul war maanaam nit ki liberté dafa am ci réew mi moom day am combat taxaw ne sama combat sama bakkan laa si te combat bi c'est personnel yi fi boppam la mais teewul ay ndaw dinañ jug gëm discours boobu ba topp ko ci soutenir ko pousser ko à la victoire dina am sax des fois ci dee métti luwul loolu bal bi démoo yaay am na combat bu am ki doon bëri frère am la maama laa am na ku ci dee mais sax damaa dégg suba moom bu amaatee combat bi ñu dem wala maam naa bu amaatee combat bi mu dem dañuy dem bàkkaar bi daal moom moo ko yor moom li ko jaral xeex mu ngi ci nekk di xeex bu dee Sénégal jaral ko xeex wala Ousmane Sonko jaral ko xeex wala Macky Sall jaral ko xeex loolu problème am la loolu moo tax loolu am na ci droit mais moom amul benn autorité buy wax ni ñoom Sénégal bu kenn jug xeex wala ay joxe bakkan bu dee bakkan bakkan yaa ngi dugg ci làmb yi barke de moo jaay di doon accident yu am ñu fa dee demuñu woon ngir xeex mais nguur bu bon ak yoon bu bon ak tali bu bon jël alalu askan war ko def ko war a def ko lee ba nit ñi mënuñu am oto yu baax mënuñu am tali yu baax loolu tax ñooñu dee kon ñooñu dañuy woo pour dee bi waaye système te xeex xeexal nañu Ousmane Sonko xeexal nañu ma Samba xeexal nañu ma Demba mais tey est-ce que euh, jàppoon ni Siteu li mu wax loo xam ne arrangé wu leen moo tax nga wax parce que tey su waxoon jëm jëmale ce que tey discours bi di nga ko tenir Macky Sall tamit neewul gatsa gatsa. Ousmane Sonko moo wutil démb moom moo ne gatsa gatsa moom la ndaw yi a wax ñoom jaral na leen seen bakkan. Siteu daal ay dañuy tax naan Siteu jaral na suñu bakkan. Ah, mais ñun tey fekk nañu combat Siteu ba

ñun benn politicien jaarul joxe suñu bakkan suñu avenir la ñuy xeex ni kii nii tey muy Ousmane Sonko am na politique am na ndaw yi tey jooy jooyal na ndaw jàmm bi am na liggéey Ousmane Sonko nag ndaw yooyu la bëgg a sori dafa am projet pour ndaw ñooñu dafa ne ndaw sax bu leen defati ci gaal bu leen dugg toog Sénégal bu ngeen fee tekkee est-ce si te amul yërmande la parce que gis nañ ci bi wax ji dem na ba génne ak moom di jooy ndax euh, coxeel gi mu am ci ndaw. waaw yooyu yërmande ci ndaw yi leneen mu ngay teddee si c'est contradictoire c'est pas c'est moom moo war a doxal leçon de morale parce que moom c'est un combattant nekk ci lay duufee su boppam di bëri waa ngay xaar mu koy fayee. waaw defal naa waaw defal naa defal naa dama expliqué. Mhm. dama ne la ci ay business su boppam la nekk. Mhm. gis nga léegi bu amee combat balaa kenn ci jëriñu moo ci njëkk a jëriñu. Mhm. moo koy boppam boppam te teewul ñu ñaari jug bi dee ñu parce que loolu cofeel cofeel ci moom kooku moom di booy a amee yaakaar ci moom ci wàllu làmb am cofeel ci moom ndax ñu ngi leen di jàppale loolu la ñu topp Ousmane Sonko amee yaakaar ci Ousmane Sonko amee cofeel ci moom loolu pour le Sénégal de demain kon moom buy wax dafa ay waxam. lan ngay xaar ci Siteu yow. Siteu dafa juum mu génn génn génn ci lu mel parce que bile contradictoire nit ki mënul wax wenn boppam te moom xam na ni dafa juum.

nga war a am chargé de communication. am am directoire moom dafa naan ko surtout toujours sax. mais dama ne xeex bi muy wax. dama bëgg mu xam ne ñun xeexal nañu benn politicien ñun Sénégal moo tax ñuy xeex ak suñu avenir te réew mi bu mu jaay wax xeex naa fekk nga. Sénégal yi mënoon nañu ci place Ousmane Sonko tey taxaw loolu dina soxla ay ku ko soutenir mais yedd yërëm moo ko gën pour que Ousmane Sonko balaa ngay nekk di ko yedd dañ ko war a yërëm surtout kuy taxaw fii naan la naan Ousmane Sonko ak Macky Sall moom moo leen yërëm bàyyi mooy ki xamante ni moom la Sénégal fam am am am si moom jëmmal ko suñu lépp. pourquoi aussi bu ñu jëlee doon tontu Sénégal yi ñooy jàppale ñu est ce que ñu dëkk jàmm ay saal maanaam dëkk am am dëkk ay saal war na jàpp ay Sénégal yu am ay saal bu am dëgg kese am compagnie. Mais c'est un moyen. mais mooy non il se prend pour kii. non il faut kii bàyyi nag. non dafa laaj rek. ñu tuddee programme bi non dafa laaj bàyyi gis nga. yé na def nàkk bu baax. yow yow fii gars yi bu fi toll bu fi toll nag fu mu toll yow yow lañ lay wax. Mm-hmm. bu yaakaaree ñooñu jàmm leen. ñooñu ko gën a góobu dëkk la moom. te bu daawoo daan wax da ngeen ñooñu jàmm leen. na nit ñi bu nit yaa am na yaa am na. ba boo fekkee gën a seetaan la gis nga gars yi bu ñu yëkkatee woon. day a nga daal sooy wax da a xam ne nga war a wax xamul ëllëg lan mooy xew ëllëg. ko rendi te ñu nit duñ seetaan ñu ko rendi ndax Adji Sarr moo waxal boppam moo ne man Ousmane Sonko defuma dara ay vocalam génn ci place publique bi mu leer mais Siteu loolu dossier boobu nga xamante ni moom. mais meeting bi am na mel ni ku jëfur ku ne di génn di wax nañ bàyyi gis nga nañu bàyyi acharnement bi. mais am na droit wax ak ay borom ñu ñu ñëw ci euh, euh, dossier bi. non te buy wax da wax lu mu concerné déggoon na li mu wax nii lu koy yàqal xoolal lu mu koy yàq moo ëpp lu mu koy defaral. ko da nga da nga bëgg. man da ko bëgg su doon sama sànq kenn du am noonu gis nga. Mm-hmm. yow mii xam nga ni te wax bii mu wax li mu koy yàqal moo ëpp lu mu koy defaral. Mm-hmm. il n'a pas le droit d'acharner sur des gens moom mu ngi xeex li ko jaral xeex moom ay nit ñu ngi jug di xeex moom ngir moom kon ay nit bu jugee di xeex ngir keneen war koo métti lu moom day bëree ñi dañuy politique ñi politique bi jaral xeex bàyyi leen ñu xeex moom chaque jour mu ngi bëree nit ñi di dee am na ñoo xam ba mu la ñor ñaan yàlla si am combat ndax soo amee combat bi dañuy sonn. kon est ay nit non dafa nàkk ba Dakar ay nit dañ koy wax mais est ce que li la tey ko jox combat léegi lan mooy ndey bu dee violence. wala rayante wala xeex moo tax mu ne nañ nañ toog mais moom chaque jour mu am combat bi yor sax ne man du ko amati combat waaye nee naa la am na ci combat Mor Dom nit bu dee. kon bu fekkee dee man it nit ñaa ngi tëdd seen kër yi di dee. c'est que mun mun moom avenir la mënu ko jaral bakkanam ba pare naa ne ñun suñu avenir bi ñu jaral suñu bakkan te suñu avenir gis nga Sénégal ñaar jàmm wallaay dëkk bu mën a neex la. lu garaaw laa lay Sénégal am na pétrole am na gaz même bu doon am woon loolu yëpp géej gi ñu am rek waroon nañu mën a jëriñ suuf si ñu am waroon nañu mën a jëriñ. mais ressources naturelles yi ñu am mënoon nañu jëriñ mais nguur gu bon. nguur te yàlla mel na destin wu réew bu ma ko changé mu fépp réew moomu bàyyi wu ko changé seen destin. waaye léegi nit ñi jug am waa léegi yaakaar si non xam nga dama métti am na ñoo xam ne seen sëriñ kese jaral na leen dee. moom mi tey boo tuddoon sëriñam léegi mu jug ne day joxe bakkanam mm-hmm. waaw mais lan mooy ndayu sa sëriñ jaral la dee sa avenir jaral la dee léegi nit ñi jug yaakaar ci benn nit pour seen avenir nga ne ñoom war ñu xeex mais c' est injuste. il faut que boo amee une leçon de morale mu garder ko si te man war naa ci yàlla bu ñu tuddoon sëriñam léegi mu joxe bakkanam il faut qu' il arrête te Ousmane Sonko muy keneen ak keneen ku nekk ci problème dafa am ñu leen yaakaar pour ëllëgu réew mi kon na bàyyi nit ñi ñu xeex amul benn discours bi amul dara lu ciy gagné te il est contradictoire parce que moo doon taxaw naan dëkk bi di jënd ay moto pompe di dimbali askanam di jënd ay ay moto di ko jox ay ay kër jël xaritam mu bokkal bokkal léppam muy muy Fodé jël avance am dem tabaxal yaay Fodé kër Fodé bu fekkoon réew mi dox na balaa muy génn àdduna di tabaxal yaayam kër ndax jàmbaar la liggéeykat la mais ñàkk réew mu dox ñu jël alalu askan bi ñu ko ñëpp war a dundee kenn ku dënnu ci nekk du mujj fenn ko di xeex te loolu noonu la ñuy xeex il faut mu xam ne ñun xeexal ñu benn doomu bàyyi jàmm dañuy xeex ngir suñu jël argent contribuable ñu teg ko fu ko war a teg pétrole bi ñu négocier waat ko Sénégal gis boppam comme Dubaï ay nit di ñëw di fi immigré bi au contraire ñuy jëli ci immigré bi te loolu mën na nekk. mais nga jàpp ni ko ki nga xam ne mooy le seen président mën na koo sonal le président Ousmane Sonko. waaw yaakaar yaakaar loo yóbbu nit màkk il a un projet. Mhm. gis nga un homme d'État. Mhm. il pense aux générations à venir. Mhm. mais un homme politique passe pense aux élections qui viennent te Ousmane Sonko il est un homme d'État. su fekkoon il est un homme politique mois de mars la naan gars yi dañ dem palais ndax il avait il avait ce pouvoir mois de mars mois de mars tey fekk Macky Sall bu palais bi kilifa yi waxee dafa ne bàyyi naa def conférence de presse ne xale yi dem leen ci kër ya bugguma ñu nangoo nii fekkoon ne pouvoir dong moo ko ñor comme ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy yàqee dara bu dul pouvoir dong moo ko ñor mais dafa ne gars yi reculé leen. 2024 yàggatul bàyyi leen pour mu eggali si jàmm. kon Ousmane Sonko lu ko waay waxal lu dul nitu jàmm lu ko waay waxal lu dul dugg benn problème rek la am. mooy il a une ambition de ji de diriger ce pays. ambition boobu mu am nag loolu kese lañ koy bëgg a xataale mooy que ñiy bokk ci ñun dafay dafay déggoog tubaab bi ñiy bokk ci ñun dañuy bokk école. gars yi ko jiite depuis 1960 ba léegi ñu jiite réew mi dañoo bokk benn école politique bu ñu génnee. bokk benn gis-gis nga xam ñoom bu ñu mës a réeroo Ousmane Sonko ñëw génnee ci mbooy mi problème boobu la gars yi am ñu ne ñoo noonu duñ fi teg koo xamante ne xamuñu lan mooy idée ak fan la jógee politiciens yi ñoo ñu doon tànnal même Abdoulaye Wade moo ñu tànnal Macky Sall c'est que yéen ngeen ne maanaam loolu yëpp waxtaan la ñoom ñoo xam nuñ koy gérer léegi nag Ousmane Sonko dafa leen jaaxal parce que bokkut ak ñoom école bokkut ak ñoom idéologie te ñoom Thomas Sankara la bokk continuité ay Thomas Sankara mais mais Ousmane Sonko moom ngay wax tey nga jàpp ne Ousmane Sonko euh,